ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaara ci weer wu tedd wi ñu nekk di saaru Ramadan mubarak ñu ngi leen di nuyoo fii ci pakk bu lab bi di si ci Kaolack ci Passoir kër Serigne Cheikh Ndiaye ñu fas yéene waxtaan ak yéen li nga xam ne nii moom moo aju ci bis bu mag bi nga xam ne nii ñu ngi koy waajal te bis bi borom pàkk bu lab bii nga xam ne moom lañ nekk tey. di sëriñ Cheikh Ndiaye jàmbaaru lislaam jooje di jàmbaari sëriñ Touba tey jàmbaaru Cheikh Abdoul Khadir mbakke amoon ci ndigal ci Cheikh Abdoul Khadir Mbacké di taxawoo bis boobu mbokk yi bis boobu moom moo dëgmal si di si woo ñëpp waaye tamit di si dalal ñëpp ginnaaw bañ ko amee ci ndigal sëriñ bi nga xam ne moom moo ko fi nekkal di xalifaam di si liggéey liggéey bu am solo di sëriñ Omar Ndiaye ginnaaw bañ ko nuyoo siyaar ko ñaanal ko yàlla suñ borom yàggal ko fi lool te wéral ko ci barkeb sëriñ Touba mbokk yi jotaay bi nag ñu ngi ànd ak ay kilifa yoo xam ne ci kilifa yi kër gi lañ waaye tamit ci kilifa yi daara ji lañ ku si mel ni sëriñ Mbaw mi nga xam ne moom mooy jëwrinu daara ji koo xam ne liggéey bi fi mu tàmbalee ba fi mu toll tey lépp si ay loxoom la jaare ndax góor yàlla gu màgg gu tedd googee moom moo yëkkati woon liggéey bi teg ko ci kanamam muy jëriñu daara ji sëriñ yu Mbaw li ci toftal tamit ki nga xam ne nii kenn réerewu ko wala kenn nattablewu ko ci daara ji di soxna Njaay Sàll moom mi nga xam ne tamit liggéey bi ba dooree ba tey mi ngi koy ànd ak ñun ci saahir ak si baatin nga xam ne liggéey bi tamit Baye seex moo ko yëkkati woon teg ko ci loxoom moom tamit mu seete ci wàllu soxna yi waaye tamit ñu ngi ciy àndal ki nga xam ne ni tamit ginnaaw bu mag ñooña jàllee ñoom ñoo leen gën a féete ndaw ñoom ñooy wutu mag ñi si wàllu googa di Serigne Baye Sall moom tamit ne ni liggéey bi mbokk na si ñi nga xam ne nii ñoom ñoo koy doxal di leen ne siyaare bu baax di wax ne guddi gi comme ni ko ñëpp xamee da di guddi goo xam ne suñ borom subhanahu wa taala ci boppam moom moo ko tànnal boppam def ko muy ngën gi guddi ginnaaw bam ka wàccee ci ngeen gi weer nga xam ne mooy guddi goo xam ne genn guddi goo xam ne kenn ku nekk xam ne ne xayrun min alfi shahrin moom moo gën junniy weer jël ab saaru lëmb te alquran tuddee ko ko muy suratul xadr di wax ne genn guddi la goo xam ne moom moo gën junniy weer waaye tamit genn guddi la goo xam ne nii junni weer yooya mu gën tekkiwul ne rek a gën noonu rek ci ay asar waaye dafa doon junniy weer yoo xam ne boroom ki nga xam ne ni dund na junniy weer yooya day doon nit koo xam ne mboolem dundam gépp mu dund bëccëg yi daf koy woor guddi gi mu di ko naafila borom bi subhaanahu wa taala nee na nga dundal guddi leelatul xadar danga am yoolu koo xam ne dundam gépp daka woor bëccëg yi guddeem yépp mu taxaw di ko naafila si loolu nag si sëriñ bi xamoon ak yiw wuñ am ak euh, maanaam xéewal yi ci nekk ak li nga xam ne nii moom la ci borom bi digee ci ay yiw ak ay xéewal ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne man qaama laylatul qadr imaanan wa ihtisaaban xufira lahu ma taqaddam min sanbihi képp koo xam ne taxawee na laylatul qadr képp koo xam ne taxawee na ko ci ngëm yàlla gu mat sëkk-sëkk ak sàkku yiw wu mat sëkk-sëkk kooku dinañ ko jéggal ay bakkaaram yi nga xam ne nii mooy bàkkaaram yi njëkk yépp kon loolu rek yaakaar naa waroon naa tax ñu di ko taxawee ginnaaw ba sëriñ bi xamee loolu nag xam yi bu ci nekk yépp si la laaj ndigal ki nga xam ne nii moom moo fi nekkaloon sëriñ tubaa te nekk wasilaam di léppam mu joxoon ko boppam muy Cheikh Abdul Xaadir Mbakke radiyallahu anhu sëñ bi jox ko ci ndigal mu tàmbalee di ko taxaw si wu woowa nag ci la waxoon ne lépp loo xam ne nii am naa ko ci dinaa ko ci def waaye tamit lépp lu ma waaye jox dinaa ko ci defal ñu ngi si si liggéey boobu noonu si jëm kaa yàkkali jëm kaa yaatal jéem a yaatal yiw yi ndax ab yiw ku ko am da nga woote ba ñëpp bokk si bu ko defee ñëpp mun see jariñoo moo waral tey ñu ñëw ak yéen si li nga xam ne nii moom mooy eh, vidéo yi ngeen di seen ak yeneen sibu internet yi nga xam ne nii yéen a koy gis loolu yëpp tekkiwul dara rek lu dul yiw yi nga xam ne nii moom mooy baawaan moom mooy saawaan bu ko defee ñëpp mun a ñëw ñu bokk kook ñoom kon xam naa dañuy jox kàddu gi ki nga xam ne nii moom mooy jëwrin Bada bu ko defee moom tamit mu dikk ak ñun ci li nga xam ne nii moom mooy cosaanug laylatul xadar gi ak li tax sëñ bi woote ko kon sëñ Bada kàddu gaa ngi noonu auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmani rahim allahuma salli ala sayidina muhammad alfatih lima xuliqa walxaatimi lima ñu ngi sant yàlla tabaraka wa taala di julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sëriñ Touba di sant sëriñ Cheikh Ndiaye di wax mbooloo mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp te di leen siyaare ci weeru sel wi te di leen baalu àq te di leen baal àq ci weer yi nga xam ne ci la nekk muy weeru koor weer nga xam ne moo gën ci weer yi ñu ngi leen ci siyaare bu baax a baax te di leen ci baalu àq lépp lu xam ne doxoon suñu diggante ak yéen muy lu ñagas yàlla na ko yàlla na ngeen ko jéggal ñun nag jéggal nañ leen lépp loo xam ne def def ngeen ñu ko ñu leen ko jéggal baax ñu ngi ñaan sunu borom bokk ñu jéggal ñëpp ci barkab Serigne Touba bu loolu jàllee nag guddi gi nga xam ne moom la Serigne bi wax nii ñu ngi ko ni ko ku tedd ki daan waajale moom yëmu ci guddi googu rek ndax diir bu weer wi teroo. guddi gum jot moom guddi kooku da koy dundal ba ba bis ba ñëw ba ba weer wépp dee jeex ndax moom laytul xadar rek daaw ko dundal boo guddi dong moom guddi weeru koor yëpp lay dundal ak bëccëg ndax la tikaaf fii la ko daan defee fii ci jumaa ji man maa ko daan dugalal fukki fan yi mujj ci weer yi maa ko daan dugalal fii bagage yi mu ci daan mu fi daan nekk fatu ba fukki fan yi jeex kon kooku yëmu ci guddi laytul xadar rek moom weeru koor ci boppam guddi ak bëccëg yëpp la daan dundal loolu la xam ci moom bu loolu jàllee ñu ngi sant ki nga xam ne moo ko fi teewal di sëriñ Omar di xalifaam moom la waroon njëkk sax ndax nit lu mu baax a baax ci bàyyiwul ku baax it la mu bàyyi mën naa niil waaye dafa bàyyi ku baax moo tax lim lim fi bàyyi mën a dem ci kanam Baye Cheikh nee na Baye nee na gaa yu baax yi bañ demee di wuti baax Serigne Touba moom dafa dem wuti lii téye baax. ba noo ba noppi doog wuti baax def ci biir moo tax bu baax nekkee du bu fa baax ñëwee dootu fa dootu fa jógeti moom loolu la bëgg a wax ne moom bu fi jógee baax du fi jóge mukk ndax lay wuti baax la la def la am ba noppi doog wuti baax def ci biir moo tax fii baax du fi jóge mukk incha bi rabbi dafay sax kon loolu la noonu la ko Sëriñ Tuubaa defee noonu la noonu moom noonu la ko defee kon ñu ngi koy siyaare bu baax ci di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi ci wéral ko bala mu yéene ci léegi Sëriñ Tuubaa sunu moom defe ko xam nañ ci moom bëgg Sëriñ bëgg goo xam gi leer na nañ ci képp ku fi ñëw ci moom bëgg sëriñ Tuubaa am leer na nañ moom sëñ bi muy sëñ Omar di siyaare ay rakam yëpp sëñ Maam Moor ak sëñ Moodu ak seeni rakk ñoom ñëpp góor ñi jigéen ñu ngi leen bu baax baax ci guddi gi tedd gi waaw cosaan yi lay dafa jotoon ndigal ci sëriñ bi ndax 1966 da ko commencé jàng fii da ko commencé di jàngalu waaye lu nga jiitu moom yàggoon na koo di def waaye ci 1966 la am ndigal ci sëñ bi Xaadir bay àllam moom moo ko daan jàng 1966 nee na la ko Baye Abdou ñaŋ ñëw fii Baye Alla Niang di jàng mu jox ko mu jàng mu jàngee ba noppi Baye Cheikh na ko waaye xale bi fu mu dëkk mu wax ko Baye Abdou Niang Baye Alla far bàyyi ko guddi ga ci 1966 la ko bàyyee Baye Abdou Niang bis bu ñëwati lay toxal bu ñëwati moo koy jàng loolu Baye Cheikh moom ma ko netti kon guddi gi borom guddi gi ku ko yàgg di waajal la ku ko yàgg taxaw la maanaam 1966 yàgg avant booba tax fekk na mu koy taxaw waaye jàng yi nga xam ne Baye Alla moo ko daan def 1966 la ko kii nangu ci moom Baye Abdou Niang kon booba ñu bari juddagul sama classe gi kon loolu yàgg na cosaan yi nag mooy moom ak li nga xam ci moom ak li mu bëggee yàlla ak bu yonentam ak bëgg Sëriñ Tuubaa ak bëgg lu baax moo waral guddi gi kon ne dafa nekk ci Kaolack nekk fi leneen kon du mën a am guddi gi waaye pëstéefam ak pas ak bëgg Sëriñ ak bëgg yont bi ak wax na ma ne ba muy nekk tout tànk musta musta dem fenn benn moroomam di ko njëkkati yàlla di jaamu yàlla nee na benn bis mas naa dem ci benn dëkk tukki fa ba mu tëddee ba ba mu tëddee guddi mu jóg di jaamu yàlla am ku mu dendal néeg genn gan mu jóg mu dégg ma allah nee na ma ne waa kii fu ma jaar ci suba ga ma neen damaa waajal li ma doon li may jaamu yàlla tëddaale ma jógati dégg ma allah ci suba ga neen moom moom amu ci kiñaan ndax bàyyi si amul ñàkk dafa ñàkk kiñaan amul benn kiñaan ci suba mu jënd sukkar lépp lu ñu kii dem siyaare ko wax ko na ko man de defoon naa ne nit du ma njëkk a teel a jóg di teel jaamu yàlla mu ne ko akasa waaye kooku nee na ñetteel bi taxawam la mage na bàyyi seex lu mat fukki at daal mu ne ko da nga caa da nga caa tolloogul rek waaye boo ci tolloo da ko def incha allah waaye dem na ba moom daawul nelaw daawul daawul nelaw guddi kon kooku lii mu am da ko ki yàlla jagleel da koo yàgg a taxawe daa yàgg am positif ci jaamu yàlla ak liggéey Serigne Touba moo tax Serigne Touba jagleel ko guddi gi tëddul di nelaw rek ba am guddi gi ndax dëkk bii dëkk fi woon nit nag bu fekkee dëkkoo ci dëkk amoo fa mel na mbokk ñëw fa yàlla mi nga nekk nekk ca yàlla ba am fa lii kon xam nga ne kooku tëdd woon di nelaw ndax mel na mbokkam néew fi moo yëm ñëpp ndax bu fekkoon dafa nekk ci biir mbokkam nga ne mbokkam yaa ko mën waaye fii mu ne ba mu passoir ku ne xam ne ni mu rëbbi woon fàngoo la nga fi lu ne lu bon lu ne nga fi waaye mu ne ca yàlla tabaaraka wa taala di ca ne di ca nekk ban dox ko guddi leetoo ak du fi jumaa ji ak ak ak daara ji ak ak daayira bi kon kooku tëdd woon di nelaw kon kooku pëstéefam ak pas-pasam ca yàlla yëmul fenn kooku lu munta am ci yàlla amul kon loolu mooy sababu guddi gi ci ci ka ko déparé la mooy bàyyi seex kooku pas-pasam moo ko may lii tey jii mu am ko bu fekkoon ne dafa yaafus du am lii ndax am nañ mag ñi fi nekk wala ñu fi jaaroon ci mun ñu am lii waaye moom la ko sunu boroom jagleel jagleel yàlla la kon loolu moo sabab guddi gi góor gaa ko moo ko sàkku ci sama borom di jaamu yàlla ba yàlla jox ko ko. Hmm. Euh, jërëjëf Serigne Aline kàddu yi leer na te am na solo buñ la déggee daal cosaanu guddi gi moom mooy cosaanu jaamu yàlla gi nga xam ne nii dëkkee woon na ko te dégg nañ ci si biir wax. nga ne maanaam daawud nekkul nag leelu xaddar rek la daan dundal waaye mbooleem guddi yëpp da ko daan dundal xanaa guddi leelu xaddar da cay gënoon a fes ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax yaakaar naa ne kaddu yi leer na naññ te kenn ku nekk tamit am na ci ab déggin boo xam ne nii moom la si dégg ginnaaw bu ñu jógee ci sëñ Alioune rek dañuy jàll ci soxna Njaaya mi nga xam ne moom mooy jëruñu soxna yi te niñ ko waxee woon ci tàmbale ba rek ba liggéey ba dooree ba tey mu ànd kaag moom fekkee jamonoy Baye Cheikh bokk ci maanaam nit ñi nga xam ne wala taalibe yi nga xam ne Baye Cheikh daf leen a yoranti loxoom daal leen jàngal soxna Ndiaye Serigne Cheikh Ndiaye ak ay jikkoom ak li nga xam ne nii daan na ko jëflante xale yi ginnaaw yoo yàlla dogal na nga am ñoo bokkal nekk ak ñoom ci daara ji ak eh, nga daan gis doxalinam. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk si turam ak santam di jéggalu kàddu yi ma fi bëgg a yëkkati nag na tuuti naa ci wax daanaka waaye dafa am ndax am na jamono yoo xam ne bi ñuy nekk ay tout tànk du xadar bàyyi seex fonk na ko fonk na ko lool ndax booba ñu ngi daan commencé ci ci la mat ko dajale ñun xale yi di ko indi ci daara ji su lay doxee daal message jot dañu naan xale bu ne dongo bu ne ne andi ñu waay ci la mat wala ñëw dajale ko ñëw jox ko ci daara ji bàyyi seex lay doxal ku ko yàgg fonk la ku yàgg bëgg ku yàgg teg fu sori ndax jamono yooyu danaa jël sax miskit ah, miski danaa jël su laylatul xadar amaam du ko séddale ñu ne ci guddi laylatul xadar ba jël gerte xott sax di ko dajale di ñu ko séddale ñun xale yi pour guddi laylatul xadar kon laylatul xadar bàyyi seetlu ko yaaka fonk la muy dem ak moom dem ak moom ba laylatul xadar bi te yaakaar naa macha allah ku ne dégg na laylatul xadar du passoir xale yi am ci Pastef loolu nag am jom loolu ci amuk taalibe ak topp laylatul xadar Baye Cheikh nekk nit ku baax Baye Cheikh maa ngi fàttaliku sama yaay nee bi muy def daaraam ji fii nee boobu ay xotti gerte lañ sëkkee passoir xotti gerte nee na booba bàyyi seex benn néegam bi ngay dox bala ngaa ñëw ci kër gi da ngay yëggantu boobu mi ngi indi samay mag dafa ak xaadim ñu jàng si daara ci sama papa dugal ne bu tawaan ba sëbét bul nga ñëw ci kër gi sax problème ay xott gerte moo ko waroon waaye dara ñoru ko woon damay daara ak yoon yàlla ak yonent bi ak sëriñ Tuuba loolu la ko intéressé woon booba passeport melul nii nee sama yaay neen da nga naan taxaw fi ba mairie doo gis dara te booba bàyyi seex moom dong ak néegam bi ci digg xotti gerte yooyu ak ndox moom mu yore daaram ji di jàngal alxuraan yàgg nag yor jiite xale jiite ñu bari na ñu ne ay samay moroom yu baree baree bari ci daara ji lañ jàngi fi lañ dalee baax mais rëccuwul ni ñu fi doon dalee baax ak ñu jàngi ndax Baye Seck ku ne xam ne ni mu yoree passoire ku ne xam ne ni mu soppee passoire xale yi nga xam ne daan ci mbedd mi kat xawal kenn defatu ko ñëpp ko ci daara ji ngi xasaa it ah ci def li ñu war a def yëpp kenn defatul nen lu ko sutu noonu xale yàkkamti nañ kuréel jot war a répété jot xale yi li ñu doonoon dañ koy bàyyi ñëw di jàng kon nag ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla yokki leeram dañ fi bàyyi ah, day gën a kawe rek mais wàññi ko di sant nag suñu Omar mi xam ne moom la fi bàyyi ndax moom itam wàññi bu fi dara lépp dafa yokk sooy xool Laylatul Qadr tey jii dafa gën a gën a gën a gën a avancé tey liñ ko préparé nañ sax yàlla nañ ko fekkee eggale ko ci jàmm dugg ci jàmm génn ci jàmm ndax yaakaar naa koñ bi yëpp ànd nañ mànkoo ñun ñëpp jàpp ci Laylatul Qadr ndax ñun Laylatul Qadr gi ñor ndax moom la ñu am am ñu mooy suñ jumaa ji nag ak Baye Cheikh Ndiaye mii lañ am paas lépp lu ñu mënti am rek fii ñu moo ñu ñor waaw ñu ngi oo ñëpp nag bàyyi wuñ kenn waaw di waxaale su koy jaay nag yooyu laa ñëpp ñoo bokk daayira bi jëmb ji ñuy kanam ba ñu suur jour bi ñu njëkkee di wax Baye Cheikh Baye Cheikh kat ñun tey dañoo bëgg aw ci leetu xadar bi ndax sonn ko ci leetu xadar ndax booba léegi yaa ngi ciy def mu ne ah baa da ngeen dem mu ne ko ah ñaanal ñu dem mu ne ah kon nag naa leen bàyyi ngeen dem su ngeen demee ba mënatu lu ci ëllëg man ngeen mooy waxama góor ñi ak jigéen ñi kenn ku nekk yërëm ma da yërëm tuuxuma ci kenn su leelatul xadar jii ma saa ñëw ba béy kii doo nga daa xam fa ma toll na jabar du ko xam doom du ko xam waaye ci baaxal sañ Tuubaa loola lam daa metti metti musuma koo onk musuma ko tawat kenn moom mi nga xam ne day mooy dox sama digganteeg bu njëkk ko xam waaye nag kenn dafa mosut a àgg ci ñii ñi ba tax mu mer balaay mer rek yàlla indi lu ma ko jox. waaye yaakaar naa ba mu ci bàyyee ba léegi dañoo gën a buus moom moo ci jàpp xam naa loolu mooy puus ñu rek moo ci jàpp boobaak léegi dara sookewu ci booba léegi ñu ngi kon na yore leen du xadar gi te dara jugu ci di ñaan nag kilifa yi ci jiiteek jigéen ñeeg ñëpp ñaanal yàlla yàggal ñu fi bàyyi seet daal ñu ngi xam ci moom nit ku baax la li mu fi bàyyi daal yàlla na gën a jëm kanam te yaakaar naa kanam la jëm sax jëmul ginnaaw ndax ku ne gis na ni di ko ñaanal yàlla defal ko are ko àjjana yàlla def ko yokki leeram waaye ñaanal ak njabootam ñëpp ñoom sëñ Modou xale yëpp yàlla yàggal leen fi ñu jiite topp seen ginnaaw mag ak ñoom sëñ Maamoor ak ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaan. jërëjëf soxna Ndiaye kàddu yi am na solo leeral yooyu am na solo te ku dégg ni ngay waxee rek jàpp naa ne dina ci jàngatee lu baree baree bari te dina xam ne tamit metti woon na démb tey bu neexee tamit yaakaar naa ne démb metti woon na ndax ci sa biir wax yaa ngi ci nettali ni bàyyi sax dëkkee woon. xam ne ci ay xott gerte la dëkkoon nekk ci ay néeg yoo xam ne nii néeg yu kii la loolu yëpp yàlla moom moo ko jaraloon loola moo tax ba soxna Njaay bu ñuy nattalee maanaam wàllu xéewal yi nga xam ne daan nañ ko togg ci jamonoy Baye Cheikh xéewal yooya naka la meloon ak ah, buñ ko doon tollalee xéewal yi nga xam ne nii moom moo nekk ci say loxo ba tey. xéewal yooyu danaa ci wax tey ndax xéewal yooyu jamono yooyu ay xale lañ waaye boobu ñuy wax ñuy wax yaa Maadu Touré ak yaa Ami Guèye ñoo yoroon xéewal yi Baye Cheikh jamono yooyu nag danaan togg sax domadaa togg nañ ko fi pour léegi guddi lay dox xadar moom lay dox xadar moom lu mu amuti dana jéem rek lu mu ci def pour léegi guddi lay dox xadar comme li ma leen ko waxee rek nee gerte sax ak mbiskit na ko nit ñi lekk kon tey jii ñu dem ba yaakaar naa suñu lay dox ëpp na loxo benn nag sax rayatuñ ko fi daañu fi ay nag ah ak ay ginaar te bokkul ak yeneen lu sew yu fi nekk kon nga xam ne lay dox xadar dafa yokk waaye changé wul te suñu baas bi saakoo koo fi duggee nga xam ne lay doo xadal bu njëkk ak bu tey bokkul noonu ni ko borom commencé ak yéene ji mu ci amoon moom la ko suñu borom barkelee ba léegi nii ëpp na suñuy loxo ñun dañ ciy def rek dañu ciy jéem rek dañuy jéem rek de mais dañ waaw mboolo bi moom wax dëgg macha allah macha allah mënul jox am na takk na waaw mais dañ fi def lu kamtiyaa attan luñ ci man rek ñu koy def mais daal xam naa ne ñun kontaan nañ ndax xam naa ne bàyyi seex mi lim ñu bàyyee daal ndaxuñu waaw naxuñu de waaw newuñu ba léegi dañoo bàyyi loo xam ne dañ cee sante yàlla kontaan ci ndax jamono ji fi nekk nii ku ne fi nekk nii yëg bëgg yaakaar naa bëgg ngaa ñëw bokk Touba Baxdaad waaw waa toll naan waa Touba Baxdaad su ngeen kuréel yéen a fay jël man daal kontaan naa ci xale yi kontaan naa ci avancement daal laa fi gis na gis ma ci arrière yokk ba yëg ko laa fi gis yàlla na gën a yokk nag. allahumma amiin yaa rabbal aalamiin yàlla na gën a yokk ñu yokk ba yokk ci barkeb Serigne Touba ci barkeb Baye Cheikh di jàll si ki nga xam ne nii moom moo daanaka liggéey bi ñu si ëpp. si ay loxoom la nekk si jamono ji euh, nga xam ne mag ñi moom daanaka dañuy joxe ndigal rek xale yi ñoom ñooy dem di doxi ndigal li nga xam ne nii mag ñi ni koy joxe ginnaaw bu ndigal li wàccee jógee ci sëñ Omar ci sëñ Bada sëñ Bada da koy jàllale mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñu ngi fi toog ak ku ñuy wax Serigne Saliou Fall moom tamit na ni liggéey bi daanaka li si ëpp si ay loxoom la nekk kon dañ koy jox kàddu rek bu ko defee mu nuyoog mbooloo mi leeral liggéey bi fu mu toll si jamono ji ñuy wax ak nii barke Borom Tuubaa ñu ngi nuyu mbokku taal bi nga xamante ni ñoo teew ci jotaa bi yëpp di leen joxaat seen wàccuwaay di tubalaat bu baax kàddu yi nga xamante ni ñu ngi koy yëkkati seen ci seen kanam maanaam di fas yéene leeral li nga xamante ni rek mooy programme bi ñu jub bi bi ñuy waajal nii muy ci wàllum organisation bépp jumtukaay boo xamante ni maanaam bés bi soxla nañ ko ci rek lu ci demee ne wàllum bâche wàllum chaise sonorisation ak lépp lu ci aju rek yaa yàlla def na fi mu moom daanaka mën na ci biir programme bi it maam mi nga xamante ni mooy njàngum kuréel yi di kuréel yi nga xamante ni moo seq daara ji di ñeenti kuréel kuréel gu ci nekk ñi nga xamante ni ñooy membre conservatoire gi utal nañ la boo xamante ni moom ngay euh, fësal ci yéen ci ci ci ba te it maanaam conservatoire googu noonu seetu nañ njàng bi dam leer naññ maam tout temps yi nga xamante ni tamit ñoo nekk daara ji ñoom it danañ presté ci jour boobu noonu maam ñi nga xamante ni mooy xale yi dinañ ci yëkkati lu ci mel ne xaside yi ba noppi jàngal ci alxuraan ci kanamu seeni waajur Hmm. bëgg nañ ci amale maanaam njàngum rajas bëgg nañ ko cee dolli ren ci ci ci ci liggéey bi waaw loolu moo xamal moo nekkoon programme yi nga xamante ni daal fi mu toll nii daanaka waaw yemagum na daal. jërëjëf Serigne Saliou leeral yi jàpp naa ne leer na te am na solo xanaa ñu laaj benn kaddu rek bu fekkee ne wàllu njàng mi si yan ak yan ngeen waajal ngir li nga xam ne ñi nga xam ne dañ fiy ñëw. di dundalee fii guddi gi lan ak lan gën leen waajal si wàllu programme si wàllu njàng mi njàngum kuréel lay doon wala njàngum rajas lay doon wala njàngum awu lay doon ak euh, li aju si ni nga xam ni moom mooy dundal xol yi di tooyalaat xol yi si guddi googu noonu ana lan geen si waajal. waaw maanaam lu ci mel ne wàllum njàng mi préparé nañ fi njàngum xasida njàngum alxuraan ak njàngum rajas lu ci mel ne njàngum xasida yi maanaam kuréel yi nga xamante ne ñoo seq daara ji muy kuréel 1 kuréel 2 kuréel 3 ak kuréel tout tànk yi kuréel ku ci nekk dina presté fësal yéen ci ci ci bis bi waaye xale yi nga xamante ni tamit ñoo nekk ci daara ji ginnaaw bañ kuréele bu noppi dinañ fi yëkkatiwaat alxuraan maam tamit am na ay ay invité yoo xamante ni ñoo war a jàng euh, euh, jàngum jàngum aw mi te it am na ci euh, am na ci ñoo xamante ni daanaka liggéey bi bu njëkk lañ fi nekkoon nag ba Cheikh di fi yëkkati xasida yi ku ci mel ne Baye Abdou Niang ñoom bu soobaa moom ñoom it bu bis baa dinañ ci ñëw fësal seen yéene comme nañ ko daan defee rek am na ci maanaam njàng am na ci it euh, ay zikarkat maanaam njàng samfal geeg ñi nga xam ne ñoo yëkkati baat laa ilaaha illallaah yi dinañ fi ñëw bis bis ba fesal seen yéen soobee yàlla. waaw ah, jërëjëf sëñ Saliou jàpp na soxal dina sedd ndax loo laaj rek ci wàllu li nga xam ne moom mooy bégal ab jullit moom mooy bégalu ab murit danga fa fekk si jataay bi lu si mel ni sikrullaahi bi. lu su mel ne jàng alquran bi lu su mel ni kuréel yi lu su mel ne njàngum rajat mi lu su mel ne njàngum aw mi yooyu yëpp rek yaakaar naa ne waajal ngeen ko ci wàllu programme bi nga xam ne kenn ku nekk ku si ku nekk danga nga mën a gis sa bopp si biir euh, kii boobu. Euh, mu fàttali waale na nag ñu si mel ni suñ euh, mbokk tiijaan yi tamit ba tey war nañ leen ci bis bi am nañ ci wàll ñoom tamit si wàllu yëkkati beeg yooyu jàpp naa ne képp ku teew si guddi gi rek da nga gis sa bopp bu baax a baax a baax a baax si guddi gi kon xanaa dañuy jox suñ bada rek bu ko defee mu jottali woote bi daal di santaan mbooloo mi ñaanal leen bu ko defee ñu mën a dellu si liggéey ba ba incha allahu rabbi ah, bañ àgg sa bis baak jàmm di ñaan suñ borom subhanahu wa taala mu eggale ñu si si bismillahi arrahmani rahim dañ jeexalee ko si alhamdulilahi rabbil alamin mbooleem liñ ci def yëpp sëriñ bi nangul ñu ko te bu nangoo tamit defal ñu sa ak yokkute saahiran ak baatin ñu di ko fekkee ay at yu bëree bëree bëri kon ñu jox Seydina Aliou bu ko defee mu jàllale woote boobu. ñu ngi woo julli yëpp góor jigéen mag ak ndaw ci guddi gi ndax amuñu dul guddi gi ci woo képp ku nekk Kaolack ci Sénégal foo mën a nekk cee jullit rek ñu ngi la cee woo ndax yiw yi ñu ci suñu borom du jox ñu bokk ak ñëpp comme ni ko sëñ ba bëggee woon ñu ngi ci woo góor ak jigéen ndax yiw woowu suñu sañoon ñëpp jot ci kon ñu ngi ci woo góor ñu ngi ci woo jigéen bu loolu jàll ñu ngi sant waa daara ji bu baax a baax a baax te di leen gërëm ci seen pëste seen pas-pas ndax diir ba fi ku tedd ki jógee ba léegi kenn tekkiwul laxasaay kenn ku nekk lan la dénk yaa nga ci di doxal bu dee xale muy mag muy ndaw dara sooxewu fi kon loolu Pastef la kon ni leen ci sant bu baax di leen gërëm di sant soxna Ndiaye mi nga xam ne diirub ba daayira bi sancee bisub 31 la ko sëñ bi lañ ko njëkk a def fii man maa fi toogoon Babacar Babacar néewu fi Pape Sène góor gi Ndiaye Fallou Ndiaye ba ci alxemes ja ma ko waxee bàyyi see mu ne ñu dem te kër ga la soxna Ndiaye ñoom ñëw ak jigéen ñi ñëw ñu bari ñëwoon ci teewe ko booba la daayira ba formé woon booba lañ ko booba lañ ko woote woon boobaak léegi soxna Njaay tekkiwul laxasaayam te lépp lu ñu def ci daayira bi kenn mënu ko ca ndugg mi moo ko yor ñu ngi santit waa daayira Italie yi nga xam ne lépp lu ñu ci jox ci ay xéewal ci war a togg seen wàll seen ña seen seen seen seen doole nga ca ca ñooñu lépp ci soxna Njaay mii daanaka ki lay jóge ndax ay magam lan daanaka ñoo joxe li ci war a dem lépp jëm ci togg yeeg yooyu kon loolu bu ñu toogee war na leen sant bu baax gërëm leen yàllaa tax ñu koy def nag waaye sañ leen sant ñu ngi sant waa daara ji ak daayira bi ndax ñoom itam base bi lépp lu ciy nekk ci ñoom la liñ ciy lekk lépp lu ci daal ñoom ñoo koy ñoo koy liggéey ñu ngi sant sëñ bi nga xam ne sëriñ Modou moo formé xale yi jàngal leen alxuraan jàngal leen xasida teg leen ci woon siyaatal mustaqim yar leen ndax ba mu fi ñëwagul xale yi melu woon nii waaye ba mu fi ñëwee nekk ci daara ji yor daara ji ci lay xale yaroo ci leen jànge ci leen yaru kon loolu ñu ngi ko ci sant di ko ñaanal yàlla yàgg yàggal ko fi ci wéral ko ba li mu bëgg ci yéene ci liggéeyal waajuram wa sunu borom defal ko lu ko wee ji di sëñ Omar ak maam na leen bu baax gërëm leen di sant yi sëriñ mi nga ne moo moo moo jël si lii ndax ci daara ji la bokk waaye nag bu ko ko amal la waaye comme que bokk ci daara bi pare moo ko tax lii moo hmm. yàlla toll fu ko ci barke borom Touba yal na ko Serigne yokk ba mu yëg yal na am ngërëmal Serigne Touba ci lii muy def ci yàlla ci bu gis ci boppam ci barke borom Touba sant nañ ñëpp ñaan sëñ Mountakha Mbacké sunu borom yàggal ko fi loolu ci wér ak jullit yëpp ngeen baal ñu àq baal ñëpp àq na yàlla nagu ñaan yëpp Seydina Aliou karamallahu wajha di ñaan lépp liñ fi ñaan rek yàlla na ko borom bi nag nagu kon mbokk yi woote bàngoog yéen a ko déggandoo ñu ngi leen ci wooyoo ñëpp comme ni ko Seydina Aliou waxee góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen ci wooñoo ñëpp di dellu di ñaanal ki nga xam ne nii moom mooy suñu wasila di suñu sëriñ di suñu mag nekk fii ci kër gi te jox ñu ndigal di ko ñaanal suñu borom subhanahu wa taala guddal fanam lool ndax lépp lu ñuy def mën nañ kaa def ba noppi sax doog ko kaa wax bu ko jógee danaan ak saa rek ndax lépp lu ñuy def ci ku koy laaj dara ci daara ji tamit danaan dem leen ci sëñ Modou lu mu wax loolu laa wax lu mu ci def loolu laa def kon kooku ñu ngi koy ñaanal suñu borom subhanahu wa taala suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko te yàggal fi mboolem ay rakkam yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw yëpp ñu ngi leen koy euh, ñaanal ñu borom yàggal leen fi lool te wëral leen ci barkeb Serigne tubaa ci barkeb seen waajuru tedd wa kon mbokk yi woote baa muy guddi gi nga xam ne ni moom lañ dëgmal ci muy guddi gi Laylatul Qadr tolloog la 30 mai ci 2019 diñ ci woo ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di dëppoog ci weeru koor wi ñu nekk guddi ñaar fukki fan ak juróom ci ci alxames bi kon ñu ngi leen ci woo yooyu ñëpp di sàkku seen teewaay wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.